ci salaamaaleykum euh, salaamaaleykum amis téléspectateurs de la télévision Futur Média ñu ngi leen di kontaane waat bu baax a baax a baax a baax comme tous les samedis Week-end Start donc ça se passe sur la TFM ànd ak yéen gunge leen Week-end Start c'est un week-end qui commence mais Week-end Start star yi nga xam ne dañoo nekk au Sénégal jël leen ak seen ay projets produits yi nga xam ne moom la ñu génne waaye événement yi nga xam ne dafay euh, am ci mi yaakaar naa ne tey Euh, show bu dee dañu koy wax tey événement bu dee dañu koy wax tey fi ñu toog nii bu ñu jógee Fanta dañuy déplacé wu rek pousse ba ne le euh, show bi foofu lay amee à partir de euh, tey wala tey ah, ok tey la ñuy enregistré suba ñu daal di koy teg sur la TFM donc yaakaar naa ak invité yi nga xam moom lañu am tey sa waay sa costume rafet na macha allah yee yee blanc bi blanc de lait lii blanc de lait la wala blanc lan la. Hmm, ok na ngeen def yéen ngi am jàmm maa leen di ku ci nekk ci turam ak santam balaa ngeen di fay xaaral ba pare salaamaaleykum. waaw ah lii xaw ma blanc de lait la xaw ma blanc de. blanc mayonnaise blanc mayonnaise on dirait ah. merci beaucoup. <laughs> donc euh, salaamaaleykum la TFM mbégte lay doon chaque samedi ñu jàkkaarloog yéen di démarrer Week-end Stars dans la joie dans la bonne humeur ñu ngi nii démarrer nañu Week-end Stars donc euh, artistes yi ñi fi nar a jàll nag Abba euh, Sénégal dinañ leen xam waaye am nañu ci bëri ñoo xamante ne dañ leen di découvrir fii à travers li nga xamante ne mooy Week-end léegi léegi lay doon ci bu yàggul dara Abba. léegi léegi ñu démarrer li nga xam ni moom mooy Week-end Stars ak Euh, foog naa ni clip bi nga xam ni moo lëmbi réew mi son bi nga xam ni moo def ci YouTube bi une semaine romb na un million yi di dem son bi nga xam ni son waxtaan la ku ci nekk ci ñun euh, bu nit ñëwee indi la loo xam ni attanoo ko euh, boo ko nee sabato gaaw na bu déggul nga ne ko xël ya daw dafa bari bu déggul nga ne ko sa fit rëy na bu déggul da nga ko wàññi ko donc nañu ko xool rek bañ cee yàgg nañ ko xool parce que maa woon trois mois moo ñuy gunge ci li nga xam ni moom mooy Weekend nga xam ni moom laa wax et que yéen nga xam ni bëgg ngeen album bi nga xam ni génnagul ah, le producteur Boubacar Ndour ah, nee na bu ngeen ko bëggee mën ngeen ko teel a am ngeen ko njëkk am ñëpp ci kaw ngeen jël li nga xam ni moom mooy seen wave ah nga xam ni moom mooy scanner bi ah, boo ko scanné am na benn code boo xam daf la koy jox nga teg ko ci télé bi bu ko defee boo ko wanee nii rek euh, son bi euh, déjà day wàcc sa kaw waaye album bi bu génnee di nga bokk ci ñi nga xam ni ñoo koy njëkk am donc ñu lëkkaloo ci ak Wave pour le moment mais ñu ngi xaar yeneen euh, partenaires yi nga xam ne ñoom itamit dañu ci ñëw ñu war ci ànd ak ñoom am na benn téléphone bu mag buy accompagner benn projet bu mag bu war a ñëw fii toog ñu waxtaan ak ñoom hmm. téléphone bu mag a mag a mag la loolu xam naa ni ci kanam dinañ ci dugg gën cee waxtaan am na benn artiste bu mag ci ci mais bu ndaw ci âge am mais quand fa mel ni day dund di dund ba benn moment ñu bloqué âge bi dafa mel ni dañoo débloqué as bi. Euh, tey moom débloqué. alhamdulilah wàññi ko ñu nañ dem wàññi ko ñu ñëwaat ci plateau. <laughs> wàññi ko wàññi ci wàññi ko euh, donc mu ngi noonu euh, clip bi nga xam ni tarkal la fi nii mu ngi def euh, ay paawam yu bare bare bari ci li nga xam ni moom mooy chaîne YouTube bi waaye ci li nga xam moom mooy ci réew mi Fanta Samira. taaru bi yow kii Aba li nga xam ne mooy wàññi yaakaar naa dëkk bi yëpp ñu ngi ciy gis seen bopp fi mu toll nii dama koy daal di man may spécialement tey ci samedi bi ki nga xamante ni mooy lom parce que bëgg naa lu muy def mu wàññi ko. <laughs> du ma xëy ci ay wax yu sew loolu xalaatuma ko sax sama maanu tey xëyuma ci ay wax yu sew wane ko mais avant euh, mm-hmm. ko coach mi ngi génnee benn boo xamante ni taaru la tudd coach dañ lay bàyyi nga nuyoog euh, suñu mbokk téléspectateur yi nekk kon yow lay way kon coach daal way taaru na xale bi waaye la coach kii euh, bu jugee nga mën a wax ci nit ko décortiquer nga xam ni taar kàlla longévité ak largivité <laughs> coach ñu ngi lay siyaar. maa ngi lay siyaar Abba di siyaar waaw ñu ngi sant bu baax di siyaar mhm. soxna si. waaw euh, di nuyu gars yi fii euh, sunu mbokku at si yi ñu seqal plateau bi. waaw di jaar di jaar waaw di jaar Sénégal daal di jaar ñëpp ak ak ak ak téléspectateurs yi ñuy suivre actuellement quoi. Mhm. di jaar sama waa koñ Las Palmas ñëpp daal tout le monde ñëpp ñuy suivre quoi. sama yaay koy def Adja dama koy wax parfois nay bàyyi xel ci invité yi mais moom nee na invité yi yoonam nekku ci moom ñun la lijjanti nga baal ñu ci loolu <laughs> loolu ñu ngi ciy jégalu mais pourquoi le nom coach bon le nom coach dafa nekk tur boo xamante ne depuis may nekk xale la quoi depuis may nekk booy may fréquenté ay pas yu nekk sama koñ comprendre ay ay bon saa bu ma génnee war a foo bi sama gars yi bu ñu demee foo ci àll baa nga fay rek yooyu man ci paay laay dem toog parce que dafa am benn jumaa bu jàkkaarloog sunu kër tout le temps su ma génnee ci ñoom laay dem toog ba par la suite ainsi suite ba benn paa ci ñoom ba ma tuddee coach ndax bu ñu toogee ay jours gisuñu ma day ñëw suñu kër seet si ma. comprendre nga des fois fekkee dafa fekkee borom dafa dogal ma feebar buñ ma gisulee dañuy ñëw. mais bi ngay nekk booy yaakaar na amoon nga. kàddu euh, gi nga xam ne moo doon nekk amoon du doom jigéen te ay buur du mbokk buur du mbokk. buur buur mbokk. lan buur buur du mbokk bon jigéen soppalte bul wóolu. jigéen soppalte bul wóolu. mag mat naa bàyyi cim réew mag mat naa bàyyi cim réew doomu jiit la du doom. doomu jiit la du doom. bi mooy doomu jiit doom. buur du mbokk mat mat naa bàyyi cim réew jigéen soppalte bul wóolu. waaye coach bi moom dafa ne taaru pourquoi le choix de taaru pourquoi nga sélectionné li nga xamante ne mooy taaru def ko. pourquoi taaru. Ah. taaru taaru taaru ba taay. <laughs> non mais dëgg la bon bon bon Abba li tax taaru. léegi est-ce que duñ dem xool clip bu bari ñëwaat. bu la neexee ñu dem après ko. ay <laughs> ñu dem xooli clip bu ko ci taaru te ñëwaat léegi ci plateau week-end sax. ok c'est sa dangay addu may sentu gis muy di nii ma raaki duggu tante biri suux niir wariram juttunoo sa maniya timgee ni banjoli bu fri ay laafam dingeroo xol sama bilayataa xool donc euh, acoustique la wala slow la. Euh, am acoustique la ba pare demee ba ci biir dañ koy dawal comme mu gën a soft aussi. mu laaj la pourquoi le. li nga xamante ni mooy taaru taaru spécialement. taaru parce que lépp dafa dooree ci taaru ci ni ma ko jàngatee quoi ci biir kër gi ba ci biti ndax njort naa ni bu dee ci biir kër gi ñu nekk benn couple pour jàmmam foog ñu déggoo foog ñu waxtaan foog ñu juboo mhm. comprendre nga. loolu yëpp dafa bokk ci liy taaral diggante te lépp départ man ma jàpp ni départ boo gis rek xëy na ci biir kër gi lay tàmbale doo ko mën a àgg ci bitim moo tax son ma def ko espécialement pour ñi nga xamante ne ay jëkkër jabar lañu nga xamante ni déggoo daal foofu la mën a dooree pour waa ji sa amaana bu génnee mën a am jàmm pour soxna si bu toogee di ko a am euh, ko ni mais am na de son yu may la laaj waaw lii la laaj taaru nga toog taaru nga toog waxtaane ko merci merci naan ko sa rafetaay naan ko sa rafetaay sa jekkaay ni nga yiwee waaw beneen sa am na loo xam ne Aba <laughs> tere na ma ko ba tàyyi mooy li nga xamante mooy chaque fois ku fi toog su génnee benn titre dama naan ko ndax lii c'est personnel wala loo xamante ne lu eh, abaadu la waaye man dama bëgg a xam ndax lii Kocc Way tey lu neex lii ndax c'est personnel wala. pour ñu ton ci vite fait. lii couple boo gis. mu ngi mel ni nga tiim Abiba naan ko tu parce que. am na vingt ans tontu bi kii xam nañ ko. <laughs> li mu laaj dafa am solo parce que gis nga ñu wax ko ñu bañ ko wax couple boo gis chaque instant du ñàkk ñoom tiraillement seen biir kër mhm. comprendre nga chaque coup boo gis seen biir kër du ñàkkam tiraillement ah, waay bi euh, yow la sa problème nga way non man la yow la Aba soxna si la gars yi donc Aba Aba am na solo donc noonu la demee kon yow xam nga yaa ngi de waykat yi ay ambassadeur lañu donc li nga xam ne mun ko wax yéen yéen ñu koy waxal def ci musique mu neex a dégg donc du gaañ kenn lan mooy projet yi ak son bi kan moo ko def clip bi nan ñoo ko def bu ñu bëggee xool clip bi fan la ñu dem pour xool ko waaw clip bi bu ngeen ko bëggee seetaan mun ngeen dem ci LSD Record wala Pikini Pikini Records. ok waaw foofu boo demee di nga ko fa mën a gis bon son bi ñu ko def bokk na ci Laye Diagne studio Laye Diagne. waaw Laye Diagne. encore Laye Diagne toujours Laye Diagne wax na ci def na ci. Mhm. ak ñoom Papa Laye studio Bapulo parce que dama koy liggéeyee foofu. aussi ak ci Laye Diagne. mais aussi bu dee ci projet yi ñu nekk di ko dawal actuellement ñu ngi préparé album bi nga xamante ne ñu ngi koy préparé ci studio Laye Diagne. maanaam affaire yi daal mu ngi ci loxo laay jaañ quoi d'une part. am na solo d'une part am na solo donc euh, Sam dañuy bàyyi invité bi mu dem ñu jël beneen invité yaakaar naa ni xale yi ñu ngi ñuy xaar mais invité bi euh, man dafay man genre son yi daf may neex xam nga tey Aziza bu woyee ne te ma jël peut-être appel lay wax. wala peut-être yàgg naa laa romb ci koñ bi. romb la faale woo ma man moom interprété ma neexee. nee naa ma jël mooy dee ma récupéré ci pet bu ñëwee wax ñu ko. xale yi code la ñuy wooyee code nañu dem xooli clip bu Aziza dee ma eh, te ñëwaat léegi ci plateau Weekend Stars beneen invité ay ca nan doxal dee ma jël. Aziza yaa ngi am jàmm. waaw maaleykum salaam Aba maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu Samira di am mbégte ak contentement tey ci sama teewaay tey fii ci Weekend Star. mu ngi dox quoi. waaw mais mu ngi baax ah kër gi. lépp jàmm quoi. sant alhamdulilah. mais lan ma problème bi euh, lan la da ngay sànni xeer wala dangay ngay régler ay compte ci biir son bi wala dara ay <laughs> téema jël ba pare ak ton bi nga ko waxee quoi ton bi dafa métti déema jël yow. wala wala wala man wala. dëgg de man de ànd <laughs> xam nga. waaye ñii di waa équipe nationale du Sénégal ah xale seen petit gars ok ok. Mhm. abaa xam nga xale jigéen dañoo doy waar. Ah. dañoo doy waar dañ leen di woo ñuy jokkoo jokkoo bu amul app boo xamul kañ lay jeex xam nga ñuy communiquer guddi di communiquer bëccëg affaire yi doy waar nag ñu ñu fenn ci morsa rek. nga wax ko ko waaw wax ko ko rek. lan la danga koy woo ba sonn du jël. dama koy woo. loolu lan la bi nga koy soog gis la euh, xamante wu leen wala bi ngeen amee problème la ci bi la wala ci problème bi la. waaw non booy bi dama ko jël. da ko jël dama ko jël bi ma ko nag <laughs> waaw di doxal. lay zonzé. ok dem ba ci biir. bi ma ko jëlee nag dem ba ci biir chaque jour su ma ko wooyee dañuy waxtaan du jox ko kenn. ci lan ngeen di waxtaan soo ko wooyee parce que. waaw c'est important xale yi am na ñoo xam ni. dañoo am ambition gu toll ni boo leen woowee di leen wax ay wax yoo xam ni kii wul dañ lay waaw. ku ci nekk ana xar yi ana bëy yeeg yooyu waaw c'est man man man man. waaw ci loo nekk waaw mooy seen oh. Oh, yooyu xale yi am na ñoo xam ne bëgguñu quoi. Ah. ay projet. non man man dama lay woo ñu waxtaan ci àdduna benn saa yi ma daaj la gaañ la non lan moo tax nga koy woo mu lay jël ba ci yàgg nga wootu ko wootu la waaw est ce nekkul daam keneen ku jaar suuf nga sax ma ndëgg sërëx ah, moom comprendre mooy non man jantam leen bu toll ma dinaa la lan da nga munoo wala da nga lan changé ci yow selon doon da nga doon mën ba mënatoo wala tey laa gën a mën macha allah non non mën waxtaan mën lan <laughs> lan la lan la xaw ma aba comprendre ma moo tax mu fenti wooy bi lépp ngi baax lépp ngi marché. ayca <laughs> ayca donc histoire euh, son bi euh, fan nga ko xalaatee naka nga ko bindee lu tax nga bind son bi quoi. waaw noonu la fa demee rek Aba li ma la expliqué noonu la fa demee ma toog xalaat woo suma directeur artistique ne ko ah lii ak lii moom tamit mu toog jàpp ci mbiri ñu dem studio laay jaan dugal. après wopp ak mu ñëw laal clip. <laughs> mais ci pet dafa am koo xam ne danga koy woo yow jëlu la wala de de manière générale da gis ni xale góor yi léegi bu ñuy woo xale jigéen yi dañuy communiquer rek qu'est-ce qui se passe. ça da leen di woo ñuy jokkoo guddi ak bëccëg wala naa la xaaral sama xarit bi laay waxal wala xaaral kii laay waxal xam nga yow tamit neexul ci xol quoi quand même. Mm. yow nga jël sa xol jël sa temps jël yëpp daal ko koy jox. jox ko xam nga rek ñun ñun ñun. benn amuñu temps ñun musiciens yi mais nag bu ñu jëlee am boole la ci tamit xam nga rek faa nga ñuy bëggal quoi ok bi mooy sa première son wala non non bi mooy deuxième clip parce que njëkk naa génnee dellu sil boo dañu ma génnee ma ñëwaat ne déema jël man ma <laughs> euh, doo bàyyi affaire ay relation yi nga ko <laughs> bu dee luñ la ci def nga way ko ah bu dee luñ la ci def nga way ko yow ci ay tromperie nga jëm ak ay trompé nga ma ay ni ma ay accepté yow foofu foofu nga jëma acca ah, ah, <laughs> euh, wax ñu projet yi euh, donc c'est quoi lan mooy xaar album dafa war a ñëw wala euh, dañu koy def single par single naka la organisation bi waa bon album nag war na ñëw album war na ñëw parce que nag projet yi ñu jënd de duñ jënd de <laughs> tax du génn <laughs> duñ jënd Sénégal non hmm. ko jënd yaa ngi comprendre et ñu ngi doon jouer ay soirée comme ñëpp ni ko ñëpp di defee macha allah hmm. ñu sant yàlla bu baax di nuyu mooy nuyu staff bi may liggéeyal di nuyu Moussa Mbodj bi nga xamante ne sii te di ginnaaw yàlla lii lépp moom la may nuyu suma xarit yi di nuyu staff bi su ma nee Zaki wala Souleymane ñoom ñëpp maa leen di siyaar xam nga mhm. wax dëgg fi yàlla bàyyiwuñu ma benn yoon nag ñu ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënul franchement parler mhm. ñu ngi lay kontaane bro waaw bëgg maa ngi am mbégte ak contentement mhm. waaye dama bëgg gërëm tuuti rek ñi nga xamante ni si ñoo may jàppale parce que ñun ay ndaw lañ mais gërëm ki ma solol tey muy waa Saloum Sob xam nga waa kër Baye Niass ko Ibou dimbali ma waaye ci kaw ba suuf waaye zoom ma waaye xam nga euh, tey ji ñun bu ñuy ñëw ci palaato yi mhm. da ngeen bàyyi xel ni li ñuy sol yëpp buñ ko noonu jël suñu xaalis di ko jënd mën naa metti bàyyi ma ko xel nga jël ko ci kaw ba ci suuf pro sancel ñi ma sansi nag mooy waa Saloum Shop waa Saloum Shop fuñ ne Parcelles Assainies tali bu bees unité 3 waa joxeel seen numéro xam nga yëpp Modou mhm. maa ngi koy bëgg di ko siyaat mhm. di nuyu nag Prince Taxa suma PDG PDG Afri Meuble di nuyu Mame Cheikh Mbaye jëringone dëgg fi yàlla démb déggante nañ ne naa ko demee dama am plateau mu conseiller ma. Mm-hmm. xam nga may nuyu ñëpp ñi may jàppale di nuyu Moustapha Tall futur maire de Yoff. di nuyu képp koo xamante ne si yaa ngi may béggee kan mooy Moustapha Tall futur maire de Yoff kan mooy topp ci kii <laughs> di <laughs> béggee ñëpp Aba di nuyu sama soppe yàlla ñëpp am jàmm su ma limee damay jum xam naa ne Samira luy naaw neex a sànni mais Aba soo bëggee nga xam ne mami dina nga xam ne na jëlu si ñu daal di xool clip bi rek daal di ñëwaat ah, en attendant jealousy and envy that your face get and then bracelet get it why you hate this won't sleep cause I be too strong and track what I buy the receipt too long your band stay low you can't stay fun you acting all mad cause my hair stay done talk about my flaws but you can't name none your man hit me up then your man play dumb he likes them lips he might get kissed never had to sneak on some side chick shit he looking at my money like he might get split can't price what I got this is pricelessness earn that now but he never gonna get it cause I'm serving broke dudes I'ma turn that down me up my list. One say is you lit, no way, and you get no play. Queen shit couldn't sash that crowd. Always elevated, we're above that grind. If the club back now, go and bump that sound. Anywhere we at, we gon' shut that down. Queen shit couldn't sash that crowd. Always elevated, we're above that grind. If the club back now, go and bump that sound. Anywhere we at, we gon' shut that down. Rich me, you ain't done that yet. Better cut that talk if you don't cut that check. Get it and I spend it and I'm living independent. You ain't matching what I'm earning, I'ma dub that next. Some take votes, I do both on a Sunday night. They endorsing, I'm looking like a model, and they pay just wear it. I'm a runway type. Got cars that a warehouse hold. You begging for a dollar with your hand out pose. Got plans to my fans outgrow. Every artist in the industry in the grandma In the audience, they throwing at the hands. I make them camp up on standout shows. Talk shit, need to stand out hole. Never had to strip up with my fans down low. Down low. It's side, type of girl that your wish list had, cause you wish you could hit it and get checked this bad. Broke bitches think they getting in abundance, and I'm getting in a thousand, but they getting in a hundred. It's a little when you're at it, and they think they benefiting, they could possibly consider a budget. So dope, keep my profile high. When I go outside, then you birds done flew. After two shot, bring a third cup through. Hit you up with something you could turn up to. Everything on flick, clothes, new, pretty, fits on point. This is me talking fire. It is this. shit couldn't sash that crowd. Always elevated, we're above that ground. If the club's back now, go and bump that sound. Anywhere we at, we gon' shut that down. Queen shit couldn't sash that crowd. Always elevated, we're above that ground. If the club back now, go and bump that sound. Anywhere we at, we gon' shut that down. down. Lady O. Mhm. mooy bi nga xamante ni mooy jëlu si. Lady O dañu lay bàyyi nga nuyoo ko suñu téléspectateurs yi. Euh, salaamaaleykum mhm. maa ngi nuyu ñëpp si Sénégal ñëpp di ñu seetaan euh, maa ngi nii quoi. waxal euh, anglais olof français loo santi rek. <laughs> How you guys doing? Hi everybody. Hi to my family. You know, I'm here in TFM. I hope you guys are watching mhm. and yeah, I salute you guys. ok what's wrong with you. waay non non non dem ma dem ma dem ok. maa ngi jégalu lan lan lan lan moo tax nga def ce choix wu ñëw fi au Sénégal pour def promotion bi alors après loolu nga mën cee tontu mais kañ nga commencé way oh ça fait des années parce que euh... yes ça fait huit ans maa ngi bind mais ça fait trois ans maa ngi dem studio di commencé di record waaw bii mooy sa premier son boo xam ni moo njëkk moom nga njëkk a génne. non bad mooy sama premier song mi ngi YouTube mais instant bi jealousy mooy sama second single and am naa tam yeneen ñu ngi available si iTunes yeeg Apple Music Deezer iHeartRadio ni ngi si plateforme yëpp yu ko nit mën a télécharger. lan mooy sa choix wu son euh, ban langue ngay faral di ëpp looy woyee English euh, or French ban moo ëpp li ngay woye English hmm. la sama sama son yëpp English la mais pour le moment maa ngi travailler quoi en wolof you know pour def benn euh, rap song en en wolof quoi maa ngi si wala da nga ñëw fii pour ay projet wala pourquoi oh, pas nga def for working wala da nga ñëw for working pleasure ok dafa dafa boole li nga xamante ni mooy ñaari waaye aussi li ma bëgg a xam mooy euh, jealousy bi pourquoi jealousy eh, mënoon li nekk sama nopp bi di wax naan ma Amérique nga jóge ñu jóge màkk dañuy wax arab waaye yéen du ngeen ma bàyyi tamit. maa ngi nii jóge ta Tunisie barki dem ma waaw la moo tax euh, nga nga nga choisir li nga xam ne mooy jealousy. jealousy parce que dama ko bind na dama xam xam nga xale yi jigéen yi ñun am you know entre ah, ñu. waaw waaw kay. oh yeah xool nit muy dox nga yéene ko leneen loo xam ne ak far mu nekk coof nga naan yàlla na ko far bi bàyyi wala ñu gis la nga sañse wala dara mën na leen oh yeah dafay am wala nga takk say verre sol sa ñu ne ah. moom fépp la wala ñu bëgg wala numéro ñu naan ko jox loolu moom ah, ah, loolu du Sénégal la moom mën na laa laaj sa numéro nii ne la jox ma ñu ne la bu ko ko jox États-Unis loolu mën na am jox ma ma xool day am day am day am am nañu <laughs> donc I get, donc ah ok nga mm-hmm. léegi si loolu entre jigéen yi quoi xam nga jealousy ko nga gis kenn moi nga gis ko mu ngi avancé si life am xam nga. Mm-hmm. nga commencé di jalouse di kii nii parce que yow xam nga déjà ñun ñëpp suñu destin yàlla rek moo ko xam. te ku mm-hmm. nekk paaf bi nga choose boobu ngay topp xam nga. waa léegi nag euh, man nag dama nekk nit koo xam ne xam nga ñu ma supporté ñu positive ñooñu laay gën a engagé wu quoi so yeah. donc lan yow foo juddoo fii wala foofu. Euh, non man maa ngi foofu depuis bi ma nekkee xale presque ay. foo juddoo fii. laa judo waa Sénégal principal. après hôpital bi. <laughs> <laughs> xam nga sénégalais la. <laughs> donc am na solo yaa ngi ba kañ. maa ngi fii ba next month. pour lan pour euh, promotion bi. wala promotion sama projet. def ay son maa ngi def maa ngi dem studio di commencer di bind en wolof xam nga rek. pour ah, def ay rap ci loolu laa bëggoon ñëw sax ndax yaa ngi mhm. préparé li nga xamante ne mooy projet pourquoi pas benn single boo xamante ne da nga ciy waye lépp loo xamante ne olof lay doon quoi nga def ko ak ay artistes sénégalais yi nekk fii why not mhm. waaw vraiment bëgg naa liggéey ak artistes yu mag fii déjà xam nga am na ñu may kiiwal correspondre pour le moment léegi nag euh, c'est que damaa bëgg a def loo xam ne lu nice balaa ma leen koy présenté xam nga. artiste lan yoo xam ne yow ak ñoom yéen a tolloo âge bokk même génération wala da ngay xool lan wala yow euh, fan la sa choix nekk parce que am naa fi ay. xale yoo xam ni peut-être dañuy wax anglais comme yow peut mm-hmm. yéen a bokk même fi ngeen di xoolee international euh, donc euh, est-ce que choix bi du nekk ak ak ñu mel noonu mën na nekk ça dépend quoi parce que bëgg naa liggéey ak big artist comme exemple ay Viviane ay you know yu mel noonu quoi ay yeneen rappeur digiti affaire yooyu daara ji xam nga waaw waaw waaw na solo dinaa déglu ñooñu quoi moo tax. ok ok donc am nga ay yeneen projet euh, yoo xam ni fii la wala euh, extérieur tamit am na yeneen artistes yu nekk foofu yoo xam ni pourquoi pas ngeen def ay affaire foofu déjà foofu am na ñu ma am xam nañ ma quoi xam nga parce que maa ngi def ay show foofu ay yeneen place ay différents cités affaires yooyu noonu mais euh, comme que Sénégal tam sama dëkk la dama bëggoon xam nga moo tax ma ñëw fii pour ñu dégg sama musique xam sama sound xam nga parce que xam naa c'est différent te dina am xam naa ñu may si mais tey mais euh, tey carrière bi day nekk benn wala day nekk euh, ñaar lay nekk parce que xam nañu Amérique nga nekk mm-hmm. donc clip yi am foofu ak euh, boo bëggee yegg fenn fi clip yi ngay mën di def ak yooyu xam yooyu peut-être fii mën na fi bañ di daw ak yooyu est-ce que euh, yaa ngi ci projet yooyu projet ay yeneen clip. waaw waaw waaw waaw bëgg naa tourner clip yu américain we waaw bëgg naa comme clip bu ay clip. <laughs> mais déjà bii nii bii clip bii nii fan nga ko tourné bii nii. non non euh, aywa même wax dama lay tàcc foofu. li état la ay différence yi. yaa ngi. <laughs> tontul ci laaju kii bi sama laaj bi dafa xaw a complexe. tontu Sénégal <laughs> nga ko defee vidéo bi dafa nice. man de clip bu ñëw ma seetaan Chicago laa ko de seetaan man anima kii laa ma amateur yàlla <laughs> man dama bëgg clip. film yi ñuy kaas ni man damay seetaan <laughs> damay seetaan xam nga fii dëkk bu ñu nekk dëkk jullit la ba pare xam nga rek ki di bër rek indi yow sa yoon rek ñu def promotion damay baykat yi yuuxoo ma ne ii booy bi moom non yaa ngi ci yaa ngi ci baabu écarté ma la laay bay. léegi ku bëgg dem xool clip bi fan lay dem pour xool ko. Uh, clip bi e YouTube mi ngi YouTube mi ngi si plateforme yëpp uh, comme li ma wax bu ko nit tamit bëggee déglu mi ngi ci iTunes Apple Music sa fi ñuy télécharger yëpp quoi. macha allah tappee ñu di Lady O Jealousy rek mu ñëw. macha allah oui loolu ñu ngi lay kontaane. merci beaucoup sant nañ la gërëm nañ la. thank you so much. lan mooy sa mot de la fin ni nga ko waxee ci anglais. Uh, your last is uh, key. Uh, my last word. Your last talk. Um, I want to thanks to my whole team, mm -hmm. Elaj, Cause, um, just everybody that support me. You know, I, I mm-hmm. appreciate it. I appreciate the love. And I'm working on, on a lot of projects here in Senegal, and hopefully you guys will hear it soon. yes ayca kontaan nañu bàyyi ñu bàyyi la nga dem. merci beaucoup jaajëf Lady O ayca tegal ñu suñu micro tegal ñu foofu suñu micro mën ngaa wàcc noonu escalier ko def exprès bàyyi ko mu dem ma mën a waaw waaw waaw ok Lady mën ngaa wàcc noonu doucement doucement doucement doucement doucement kili bu mbaaxaan mbay. ñu dem xool ko te ñëw ñu dem xool mbaaxaan mbay doucement doucement. man yow laa bëgg jigéen la yàlla fi xool yow li nga def ak li la waxal li ma bëgg ci jeeg jeeg ko ma sey moom da ngay tëggali njëkk di yëkkali njëkk di say koro di toppatoo xale yu ndaw yi ci kër jooy jigéen balaa baax day fàtt naa bu dem toog naa noppi noppi naa bàyyil bàyyi naa jërëm du ma fekk noo ko mënee kay kudaas kudaas kudaas war bu tak tak waay hey sama jëkkër ji ma yàlla jox ma nekk ak moom du ma ne rafet naa waaye ñaaw maa jëkkëroo maa ngi nii hey yow noo ko mënee li ci néegu sëy yi li ci sëy li ci waañ week li ci lépp rek tabarkaal li ci sëy euh, mu nekk duo boo xam ni xaaral euh, sama gaay ma aar leen ci corona bi nga xam ni ku ci yéeg rek dañ naan la takkal sa masque ah boo yéegee ñu ne la raxasal ci sel bi danoo sonn danoo sonn feebar bi dafa war a dem ñëpp am jàmm ah euh, tabarkaal leen di bu baax suñu baax la ba ñu ngeen def waaw ñoo ngi ni di la ziar sa caméra gi ne la di di leen wax ne ñu ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy seetaan Week End Euh, di nuyu sëñ Muntaxa yàlla may ko wér mu yàgg fi lool di jaal Sénégal gépp euh, sëñ Massamba Fall borom gàcc di ko ziar di jaal képp koo xamante ne Baye Fall nga wala ngay sénégalais wala ngay sénégalais mm-hmm. ñu ngi ziar ñëpp. ñu leen di kontaanee bu baax. suñu baax kilifa gi. waaw Aba. ci doon ne. sant waa këram. mbaa mu ngi dox. waaw góorgóorlu teel a xëy guddee wàcc comme d'habitude mm-hmm. bon avant tout di nuyu Sénégal di leen feddaliwaat suñu kóllëre suñu digganteeg Futurs Médias mhm. ndax suñu digganteeg Futurs Médias moom surtout man Modou Faye Cokotaan ak Mbaxaar Mbaay bëdd la cay weex ak la cay ñuul benn mënta dem ba moromam dëgg la te abaa comme ni ma koy faral di waxee rek xam nga àdduna moom ki tooñ bu teewee ki ñu tooñ teew kiy atte tooñ teew kiy atte tooñ sax bu jëlee tooñ teg ko ci kaw kañu tooñ kooku day dàq tooñ ki tooñ te waa Futurs Médias nag tooñuñu kenn ba tax ñi nga xam ne sont les fidèles téléspectateurs leen wax salaamaaleykum waaleykum salaam ah, da nga doon nuyoo noonu dafa doon yoonu naa ah, naa lii man. <laughs> ndax xam nga kuy war fa fanaan ba daje ko bëgg ko wéttali tëjal buntu bi rek war cee jege abaa kuy ñëw ci moom foog nga takk say ndomba de. na euh, mm. say gaaw na gaaw na ñoo takk waaye yu ci bari gaaw naa tas mm-hmm. li ci say problème bu sëy yi ngeen ànd lan la duo bi nu mu demee naka la kan moo woo kenn ki ku yëg kenn ki nu ngeen def ba ànd ci way wi waaw abaa Modou Faye day sama xarit mm-hmm. coxotaan defandoo lu nekk euh, depuis Oscar des vacances man ak moom. Mm. bi mooy sama premier single. donc mu def ci jéego yi am solo jàpp ci. ñu xool nag li nga xamante ne nii euh, donc booy génn ci benn affaire donc bëggoon a Sénégalais yi benn affaire da leen indi loo xamante ne nii ku ci nekk na ci mën a gis sa bopp. Mm, mm. te kër yi yëngu nañu abaa. waaw kër yi yëngu nañ xaw ma góor ñee takkatul xaw ma jigéen ñi ñoo nangu la sëy mais en tout cas daal kër yi métti na moo tax ñu jël morceau bi waaw moo tax ñu jël morceau bi nag. Euh, Euh, wax ci sëyu tas yi ah wax ci célibataires yi ak mariés yi. waaw ñooñu tamit waaw morceau bi daal pour loolu la pour ñu jox ko Sénégalais yi. ngeen ku ñëw ngeen tegal ko loo xam ne attan ko dem ngeen kenn kenn xamul li la la yéen la kanam ñun ñu ngi bëgg. man Abba damay yaakaar ni. Mhm. Euh, internet ni mu def ci àdduna sëy yu tas léegi noonu la def ci àdduna xam nga sama maam day faral di wax ni téeméeri at ak juróom-ñaar lu bëri la wante jamono ju nekk la cee war a xew. Mhm. seulement ci. émission bi nii rek pour ñu décortiquer ci loolu yëpp xam naa du mën a possible du coup loolu pour man beneen affaire la et c'est la raison pour laquelle en grosso modo rek ni loolu daal lëmbe na àdduna li li tas sëy jommal na ñëpp mën nañ ci na créer ay affaire mais xam naa ci yeneen yi fan lay doon parce que ñu leen di xaar bëri na te at bi àdduna bépp a ngi koy xaar mais sëy daal li li ci li koy tas est que bu dee li femmes war a def yëpp ñu ngi koy def di toppatoo di togg di yàq li ci war lépp nga koy def euh, taal goowe mm. taal cuuraay taal mm. nangam gérer mm. sa waay bu ñëwee ak humeur bu mën a indi nga gérer naxtaan ak moom kaf ah seet ko ci mu nekk bu doon bu doon bu doon dañoo joxe suite ñu war cee def introduction développement ku góor ki yem tamit dama lay wax ni ku góor ki yem dama lay wax ni li koy gën a tas am soxna yem ci en premier un point c'est tout en première bëgg loo amul la xam nga àdduna daanaka daanaka mbëggeel lool xam nga daanaka mbëggeel bëreetul ci àdduna fii ku fi takk nit rek gor moo la fay baax ndax heure boo yeewoo gis 4899 xale virgule 75 yoo xam ne dañuy siit donc mbëggeel tuxu na ngor moo fi des ak doyloo ak téye nit ki yërëm ko te yàlla rek tax luy loolu balaa baax day sant naa bul dem toog naa noppi noppi naa bàyyi bàyyi naa ataaya sax balaa neex ñun. saf naa naa waaye nag loolu dafay tuxu ndax sunu maam yi. xam nga sunu maam yi bu njëkk. ñeent ak teraas boo boo moytu juróomi kilo gi taas mbax ki tund ku tëdd ba taas. ba caakin. waaw waaw waaw taala loolu maam yi lañ fi bàyyi woon ak bàyyi bàyyi fi woon dafa nax saay mm-hmm. ba tax na li ci sëyi daal actualité la te dinañ ci décortiquer waat ci kàttanu yàlla ak baaxam am na solo léegi nag euh, yan projet moo nekk suñu kanam euh, ak euh, duo bi parce que li neex na te bëgguñu mu dakk waaw mm. mais dañu mm. dikk rek ci kaw gars yi. Mm. gars yi abaa nañu indi idée yi. bu leen leen may dara gars yi. gars yi nañu indi idée yi woyu ñu daa. aywa aywa la mais li mooy dem.

j'ai un appel personnel boo xam ne dama koy jagleel les gens qui vivent au monde de l'art mm-hmm. parce que être au monde de l'art ça ne pas dire que nga dugg ci soirée rek mu mel ni tànn biir te mm-hmm. Sénégal tey quatre-vingt-dix pour cent soirée yi ngi ciy dem wala single yi génn vidéo yi di génn daanaka tànn biir lay doon mm-hmm, musique li Papa Thione Seck waxoon musique bu yeetewul waxul ay naxee mbaay la donc nañu insister waat ci texte yi xale yi nangoo gëstu te bàyyi interprète interprétation bu métti bi ak imitation bi gis nga si tu es quelqu'un qui vit au monde tu dois être prêt psychologiquement d'abord eh, kon ñuy profité occasion bi encore di sant waa Thiès kaay bi nga xam ne fa lañ bàyyi ko sama frère Jumo bi nga xam ne moom moo def initiative bi invité ma ci man Modou Faye Cokotaan clip sama bagage yi génn bëri na mais comme moom première affaire am la mm-hmm. mu bàyyi mu bàyyi fi ñëpp ne ma yaa ma ci doy ma ñëw bokk ak moom nday ak baay ñuy ànd man ak moom Dame Sène Abbas Sey à bas âge jusqu'à présent mu feddaliwaat kóllëre kon du ma wax lu dul wax ko moom lu ji njaaga mooy ñu ngi leen di nuyu. Mbour Saly Somone particulièrement waa Agi Transport Rompoye Ngaparou Anna monsieur Thiam. émission bi moom tuddee naa leen ko. daa am wax. waa Aba ñu ngi mhm. gërëm ñëpp. Mhm. man nag donc bii mooy sama premier single. Mhm. mais defe naa ni baaxaat naa. Petite Côte bi sama fan si may jàppale donc parce que nag Aba. Mhm. nit bu fekkee rek tout euh, lundi au lundi da ngay joué. Mhm. donc ça di di di rempli. Mhm. ñëpp di ñëw di la topp cees Nianing Joal Fatick foo dem ñu fekk la fa. donc boo defee lu mel ni da nga ciy gërëm ñooñu ñëpp. ah mais nag lii lépp asu jaxate jaxate kaba yéeri yaay faatu. moo def lépp defuñu ci dara. ñuy gërëm ñëpp abaa di la gërëm. am na solo ñoo faral ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di wax ne nag gaa yi nañu xaar de ñu ngi ñëw de. léegi nag neexul tey ñi ngi tey ñi ngi tey ñi ngi mbuur mhm. ñi ngi euh, di woo fan si yëpp wax ni tey dina métti aja dina allah kontaan nañ torop yéen tamit ah di leen souhaiter bon courage dañuy daal di dem seeti ki nga xamante ni mooy Eddie Domingos moom mi ngi way play play with me play with me play with me daal Eddie nañ dem xool ñu xool ko ñëwaat Germany? Uh, Germany. Mm-hmm. Mm -hmm. Angola. Ah. Okay, we let you to greet uh, the viewer who yeah. see you Domingos. I'm an afro and pop singer from Germany, and it's a real pleasure to be today here at Weekend Start. So thank you very much for the invitation. Mm, or? No, I live in Germany. but my management is here, Mocham, So I'm working here. Okay. Yeah. You, you uh, you here for, for, for, for the work or? Yeah, for work only. Okay, okay. For one month. You have family here? No, I have a husband. Uh, my husband is Your Senegalese. husband is here? Yeah, Are Senegalese. You married? Yeah. Yes, yes, I. Your husband is Senegalese? Yeah, oh. he's Senegalese, right? Yes. Mhm. So why is the choice for uh, this title of uh, play, with, me? Okay, play with me because sometimes you know when you with a guy, the girl, you're not like representing you so so fast you're like, okay, you have I have my rules, my rules, the same rule like me, then we have a connection. You know what I mean? So like, play with me. It's your first. So, No, I have already one song. That's okay. my second song. So yeah, it's your first time here? Uh, no, uh, my third time in Senegal, but the first time so for working. Okay. Yeah. So if you say don't play with me, this is for your hurt, for, for, for your relationship or some something. Yeah, it is. It is like when you're in a relationship, you have to respect yourself and to have like, you know, a connection and know each other, you know, to to know each other. And that's why I say don't play with me. We play together. We have a rule and, you know, like a relationship. You mm. know what I mean? La so ilaha illallah. You, uh, uh, if, uh, if you uh, to, uh, talk to talk talk me uh, yeah. for your old project. Yeah. Yeah. You're here for holidays. yeah. no, no, for, for project. project. I'm really here for project. I'm like here for two weeks right now, and I'm going to stay here for one month. Yeah, and we are working with a lot of people. For, of course, I was with Idrissa Joop, is it right? The yeah. name Idrissa Joop, the singer. Yeah. yeah. I was with him. We talked a little bit, so yeah. maybe Idri Idrissa Joop, the Idrissa? singer. Idrissa Joop. Joop, Joop right. So your papa Idrissa Joop? Idrissa Joop, mm. yeah. with this man. I was with him talking about some projects oh, and also with okay, uh, okay. Solomon Fire. Solomon Fire, yes. Suleiman, yeah, okay. yeah, yeah, of course. Uh, yeah, to work with him. Yeah. Yeah, mm. to work with them. So it's a pleasure. And also, I meet uh, soccer. Uh, El Hadi Diouf, the soccer player. Diouf, the inter- yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, exactly. We're also in contact, so yeah, with a lot of people and try to do something great here in Senegal. But how do you see the, the mbalakh in Senegal? How do you see the, the, the music? You the music, the yeah. You, you know, know the understand Malak? No, what is Malak? Malak is the song of like of uh, Yusundu. Mm -hmm. Ah, okay. Yeah. yeah, yeah, I know. I know. I didn't know the song. Yeah, I love it. I love it. As I said, my husband. you know? Yeah, yeah, I know. and with the dance track. <laughs> yep, yep, yep, ya ya ya ana dafa métti sànq ba tey mënu maa ñàkk maa ngi ñàkk <laughs> I speak English. Ah, uh, because I'm Kirek, I'm, I'm very tired. Uh uh, uh, uh, today, may I, may, but I, I speak very well English. Ah, okay, yeah, yeah, yeah, <laughs> no but problem. Me, I'm today, mom, no, I'm, but uh, it's great. I'm tired, like, I understand I'm tired everything. For talk. Billahi, No. I, we are sorry I have a good English. Who, who, who, who see us. Yeah. so sorry for our English. No, our no, no, no, no, no. It's very great. I understand. understand everything. So thank you. Okay. So yeah. what is your last word for we can start here? yeah, the last word. So uh, as first, thank you very much for having me here. It's the first time that in a, that I'm in a television, Senegalese yeah. television. So it's really an honor for me. And today, this video is coming out on YouTube today. So stay tuned. Put Edith Domingos in YouTube, and then you can see the video like at okay. four o'clock. Okay. Mm, let me talk. I'm sorry. Yeah. Uh, I'm sorry for my school and uh, my old teacher. Uh, vraiment tey xam naa ni uh, everybody is hard for me. yaayam yaayam eco yaayam and my old teacher. Sorry, sorry for my English. <laughs> sorry wallahi sorry. Thank no, you for thank you, so thank much. you, thank you for much. coming. Yeah. Mm. Thank you. Thank you very much for yeah. having me. Thank you for trying to speak with me English. Yeah. So thank everybody you. Everybody is happy for uh, uh, everybody is happy for seeing you. Okay. Thank yeah. you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. See you next time. Next time. Take yeah. care. Take care because of the COVID, you know. Mm -hmm. Always eh, wear your mask, yeah. wash your hand yeah. because it's very, very Corona important, easier. right? Important. Yeah, so that we can handle the stuff. So mm -hmm. take care. Mm-hmm. Stay Thank healthy. <laughs> You. Thank you. Quand tu veux, come again. Quand yeah, tu veux, I come, I come. Thank you, thank you very thank much. You yeah, okay, thank, thank you. you. Bye okay. bye. nañu jël keneen invité bi yàlla mën na lu ne lii ku ma ne woon dina jeex du ma ko gëm. Ah, you can, you can sit. You can take sit. your time. You take your time. <laughs> Okay. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous en anglais. Faites take your time. <laughs> Take your time. Euh, euh, euh, invité bi ci topp kan la nga ni. waaw ah invité bi ci topp bi ñi ngi koy wax euh, Gabi Afia moom nag mi ngi wax li nga xamante ni mooy mbaar dañuy dem xooli ki nga xamante ni mooy Gabi Afia xool lan lay wax ci mbaar ak euh, tap ni nga koy waxee tas tas diggante tas tas nañ dem xooli ko te ñëwaat nañ dem xooli ko ñëwaat jaajëf waay sëyu maag yow sëyu gis naa li ngay daj mais yàlla baax na ñu ne ñun mooy xaar bàcc teen ñi ngi jéem te xam ni du neen xooluma kenn leneen ñu ngi koy defee fu ma lay jëlee te naturel ni yàggatul yónnee ñu dagul ma jaaka jaa signé monogamie yaa tax ma xam li neex ci mbëggeel yaa téye mbaar mi yónnee ñu dagul ma jaaka jaa signé monogamie yaa tax ma xam li neex Lasciami bien, ya te marni. Seré. teg naa ko ci yow masula metti nga daw mënoon nga xool sa taar dem doyloo nga li fi yaa tax ma xam li ci mbëggeel yaa dee mbaar mi jikko ji ci yow tax ma def la yaay yaa ma wan mat nga ci daan sama yaay doom yaay mbégte bu ma bàyyee fi yaa fi ne yaa koy daggate jabar laa bëggoon am soxna jël xol bi ma moom jox la lan moo mënu ne léegi ñoo ngi ne bokk benn ne xol yaa ngi feex baby mm-hmm. yónnee ñu dagul ma jaaka jaa signé monogamie Gaby Afia war yi li nga xamante ne mbaar mi Gaby dañ lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi lay seetaan asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àddina yëpp di la nuyu Anna di nuyu Aba di nuyu sama waa kër Serigne sëñ kër Serigne maa ngi di ziar di nuyu waa HLM yëpp di nuyu sama président fans club moom laa àndal paaji bi maxu di nuyu ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal mhm. muy Bibo ak Kouroumandiou Mori Gos Music ak waa Gos Music yëpp. Gabi tey moo indi Ibou Diouf euh, jaay nii te tegal ñu ko ci taaw bi wane gi ñu koy wane sama xol bi ñu ciy féexe noonu oh. eggal sa waxtaan yow kenn du moom waaye Gabi mi ngi wax euh, titre bu am solo sànq maa ngi ko koy laaj maa ngi naan ko mbaar mooy lan exactement soo ko mënee leeral li euh, téléspectateurs yi tey ñu lay seetaan mbaar mbaar mi mun naa ne li tax ñu ne yaa téye mbaar mi ndax mun naa ne jigéen moo téye kër gi tey góor mu nga sa dépense yëkkati jox sa soxna mm-hmm. waaye jigéen gi tey mooy nekk ci ménage bi mooy nekk ci waañ bi mooy nekk fépp ndax jigéen bu nekkul ci kër rek maanaam kër gi du dox kon mbaar mi maanaam mooy kër gi moo ëmb kër gi waaw loolu la ñu loolu moo tax ñu indi mbaar mi non mooy sama troisième son mais mooy sama premier son mbalax mm-hmm. Mm-hmm. donc tey jii euh, fi ñu toll nii album la ñuy xaar mu tegu ci wala waaw album bi single single rek non instant bi dañuy def single bégal suñu soppe ba pare mm-hmm. comme yàlla def na moyen gi nekkagu fi te ñooy dem ak suñuy propre moyen ak euh, suñu fans club yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ma leen di profité di leen ci nuyu di nuyu président fans club yi Paa Jibek ci lo di su ma leen nuyoo rek nuyu naa ñëpp ndax ñoom ñoo ngi jàppale ak waa HLM. waa HLM ban ban HLM 1 ba 6. moom mooy sa fief. Hmm. maa ngi di nuyu bu baax di leen sant bu baax a baax a baax. maa ngi nuyu waa HLM man tamit Gabi si style musical bi parce que Aba mi ngi koy wax sànq au muy gis son bi clip bi au début dafay fogoon ni son bu danse la ambiance lay doon mais mu gis ni son bu wàcc la est que lii mooy style musical li na euh, ci bi muy yëngatu. ci style yëpp. mais style bi euh, trap mbalax la maanaam dañu boole arène bi traditionnel ak trap par exemple comme début bi fi ma naan sëy yu maak yow sëy kenn loolu arène bi la euh, kii bi refrain bi chérie yee traditionnel jikko ji ci yow tax ma def la yaay loolu trap la hmm. waaw ñetti kii yooyu la ñu boole def ko son bi nii wax ñu son bi kan moo ko def clip bi ki ko def ak lan mooy projet yi. waaw son bi Krou moo ko bind Krou Mandioumori. Krou Mandioumori waaw ah Krou. Krou Mandioumori waaw mon ami. moom mooy sama directeur artistique. ok waaw moom moo géré sama lépp. ok ma koy profité di ko nuyu di nuyu manager am Blé ak waa Gos Music. ñëpp yàgg yàgg ci hip hop nga jëm de yow mi non de ma ci hip hop de damay damay mbalax de <laughs> damay mbalax de di euh, clip bi Bibo moo ko def. Mhm. Bibo bi réalisé Serigne Choix. waaw bii boobu mooy tourné clip bi moom tamit mu may jàppale bu baax a baax a baax a baax ma koy gërëm di ko sant ndax sama carrière daf ci def lu bëree bëri def ci moyen am def ci léppam muy moom di crew di fans bi tamit ak Maxu Pro waaw aw ma seen fay daal ma di sant bu baax di sant sama yaay ak sama grande sœur ak ñëpp lan moo ci topp lan mooy projet yi projet yi waaw euh, comme ni ma la ko waxee rek projet album mu ngi ci mais album bi comme yàlla def na ñun suñu moyen bopp lañuy demee ak ndaw yi di ñu jàppale même bu ñu waree def clip ñoom dañuy ñëw di ci taxaw ku nekk di xam nga parce que xam nañ ne affaire yi yombul musique dafa metti xam nga comme amaguñu tey ñoo nga xam ne ñu ngi taxaw di ñu jàppale ñun ñooy dem suñu propre moyen kon li ñuy def mooy di def suñuy single def ay son yu neex di bégal suñu soppe waaw entre temps nag album bi mu ngi suñu xel te ñu ngi ci daal incha allah incha allah waaw ñu ngi di la gërëm bu baax a baax waaw jërëjëf jaajëfati jërëjëf dem euh, xool son bi boo demee YouTube boo gabi Gaby Afia l'officiel euh, aussi maa ngi ci yeneen site yëpp Gabi sur le nom de Gabi Afia. am na solo. Mhm. ayca am na solo donc ñoo jël meilleur son ci li nga xamante ni mooy série choix. keroog bi ma nekkee ci Teranga Movies Awards bi gisuma woon nag malheureusement benn membre SSP foofu mais am nañu li nga xamante ni mooy euh, seen ci li nga xam ne mooy série choix. Euh, je sais pas nag ah, ils ont mis meilleur ah son meilleur son ci ah Teranga yow la waa. mooy seen son. voilà donc am nañ prix ci Teranga Movies Awards bi. Mm. mais kenn nekk foon nag malheureusement tout mm. seen petit galle ñëw ànd ak ay partenaires ah TCL mu ngi fii euh, loolu nga xam ni tarkal réew mépp xam nañ TCL euh, li nga xam ni moom mooy umu moo ñu ko indil waaye CO e tamit euh, mu ngi ci biir kër gi léegi léegi ci kanam dañu ñëw waxtaan ak ñoom waaye événement bi xam ngeen ni moom mooy seen petit galle ah version bi nga xam mooy All Star saison jeu nga xam ni all star yi ñoom ñooy euh, jeu ci seen biir ñoom ñooy concours ci seen biir ñooy jongante euh, ci seen biir ñu xool parmi euh, ñoom all star yi ban all star moo ci gën a all all all all all all star loolu dañ koy xool mais mais kaay kaay sama invité bi ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi nuyu maman Karine depuis la France moom ma habillé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 happy birthday to xale bi am na vingt ans enfin happy <laughs> birthday <laughs> kay toog nii kay toog day énervé wu de xol eh, day mer piisal ko piisal ko te yow nga taxaw nii bu dee da nga piis pare da nga taxaw fi yow yow mi piis waaw taxawal nii taxawal taxawal eh, eh, taxawal ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral bu yow bu yegsi de xaaral ma ñëw xoolal nañ taxaw nii ñun ñëpp Ibou Diouf est-ce que yaa baax Ibou Diouf bu baaxee rek mën nga maa wax Ibou Diouf est-ce ba ah nañu dem seetaani journal te ñëwaat léegi waxtaan nag. Abiba ay <laughs>